donc dama ñëwoon tey département Mbacké pour fekkee si seen benn session de formation bu ñu war évaluer comme ni ngeen ko xamee comité départementaux yi chaque année ou même plusieurs fois par année dañuy organiser ay session de formation léegi nag formation yooyu en général euh, mën na étaler wu sur un mois léegi-léegi sur trois mois léegi-léegi sur six mois mais à chaque fois que formation bi terminée euh, dañ leen di évaluer donc dañuy def benn journée d'évaluation natt leen pour xam ndax liñ leen jàngal ñoom am nañ ay compétence pour ñu mën a leen jox diplôme parce que diplôme Croix-Rouge duñ ko jox ko amul compétence donc loolu moo ma fi tax a ñëw tey euh, pour euh, suivre évaluation formation secouriste Mbacké yi bon impression yi ma ci am mooy damay commencer par féliciter formateurs yi parce que pour nga mën a xam ndax formateurs yi def nañ seen liggéey da ngay évaluer élèves yi boo leen évaluer rek da nga xam ndax formateurs yi def nañ seen liggéey waaye vraiment formateur u Mbacké moom gàcce ngaalaama donc li ma fi gis moom vraiment war nañ ko multiplier dans tous les comités départementaux ndax c'est une formation de qualité bon beneen euh, observation bi ma fi def moom mooy encadrement bi donc Mbacké aussi dafa am encadrement donc en plus des formateurs dañu am comité départemental bu dynamique gis ngeen tey ni ñu organiser formation bi euh, évaluation bi lu ëpp quatre-vingt-dix stagiaires la ñuy évaluer mais gisu leen fi benn càmbal càmbal y a suffisamment d'évaluateurs y a un personnel administratif te gis ngeen euh, évaluation bi ni mu jaare yoon donc vraiment maa ngi féliciter le président Mbaye Sall ak le comité départemental de Mbacké donc li nga xam ni moom lañ leen joxoon comme outil pédagogique outil pédagogique yooyu moom lañ utiliser à la base donc amul benn problème vraiment xam nga technologie boo gis day am évolution am na ay évolution mais évolution yi aussi dañ koy adapté ci réalité yi parce que mënoo ni évolution dafa am rek donc damay changer samay technique de premier secours parce que même boo amee je donne un exemple bu fekkee ni dangay ngay def réanimation tey boo demee ci pays développé yi ñu ngi utiliser benn appareil bu ñuy wax défibrillateur appareil boobu c'est pas à portée de main au niveau de nos comités départementaux donc nous on continue à faire la réanimation manuelle Euh, pour euh, euh, nos interventions parce qu'on ne dispose pas de ces appareils. Donc c'est un problème tout à fait d'adaptation. De, de, Donc s'il y des nouveautés, nous on fait des adaptations au niveau de la base. waaw donc sant sant yàlla bu baax la ñuy def ndaxte formation bi ñu ngi ko xaymi woon ci sept mois wala huit mois mais finalement def nañ plus de neuf mois loolu lépp nag ci générosité générosité sunu ay formateurs lañu formation bi nag jëlee nañ fi ay xam-xam yu bëree bëree bëri c'est une formation polyvalente sax bu ñu ko mënee wax ndaxte jàng nañ fi lu ñu wax secourisme pur dure nag secourisme pur et jàng nañ fi éducation à la santé euh, technique de communication et connaissance de la communauté muy xam-xam yoo xamante ni suñ ko boolee yaakaar naa fu ñu mën a dem war a mën a servir service askan wi muy mu jëlee fi tamit xam-xam si euh, discipline militaire te am na benn militaire bu fi ñëwoon euh, de formation muy un certain Badiane nekk nekk nekk. sapeur pompier vraiment defal ñu fi euh, discipline militaire formation bu am solo daal lañ fi jëlee ba yaakaar naa xayma bi ñu def tey nii bu ñu gisee euh, examen bi ñu doon def tey jàpp naa ni nit ñi fi nekk am nañ euh, am nañ fi formation de qualité ay compétences vraiment génn na fi. ñu ngi xaar si ñun bu ñu génnee ñu mën a jëriñ suñu askan fu ñu soxlaa rek si côté bi domaine bu mu a doon nekkul secourisme kese comme ni mu ko waxee léegi mais dem di sensibiliser nit ñi si xew-xew yi nga xam ne day am. Euh, fu ñu fu ñu mën a dimbalee nit ñi seen euh, éducation à la santé euh, ñu koy def technique communication c'est-à-dire nan lañu ñu war a mën a jokkalante ak nit ñi nit ñi fu ñu amee jafe-jafe ak si lu a doon nan lañ mën a wax ak ñoom ba saafara seen jafe-jafe yooyu loolu lépp lu ñu fi jàngale loo xamante ni askan wi dañ koy xaar si ñun loolu tamit ñi ngi siy xaar vraiment population bi yëpp kër gu ne suñ ko mënee nekk am sécurité am sécurité bu fa nekk école yi la même chose comme nit ñi dañ fay dajaloo bu ñu mënoon école bu ne ñu am formation au moins benn maître ak si élèves yi ñu mën di ñu mën di dimbali askan wi. waaw léegi nag ñu xam ne euh, les gestes de premier secours la ñuy def ñu bari nag boo génnee fii bu ñu gisee croix bi rek dañuy jàpp ne ñuy faj lañ alors que ñun dañuy xettali nit ki ba mu ba yóbbu ko kër dog ba jébbal ko ki koy faj te du am benn benn benn gàllankoor ba du ñu yokk li ko daloon wala mu naree am ay jafe-jafe si li ko daloon ñu génne ko si loolu waaye du ñun ñooy faj. ndax boo xoolee ñi gànk gànk formation bi yëpp ay jàngalkat lañ loolu mooy sens bi nga xamante ni bii Mbacké pôle formateur yi am nañ ko. ce sont tous des enseignants et directeurs de même d'école am ay enseignants yoo wax dëgg yàlla tàggatu nañ ci yàgg nañ ci ba nekk ay enseignants compétents kon li sayer wax ci comité départemental Mbacké loolu mooy foru Mbacké ñi nekk di jàngale ay jàngalekat lañ te nekk ñoo xamante ni bii métier mi rek mën naa ne dafa nekk seen deret loolu nag bu amee ci yomb ki nga xamante ni bii yàlla dogal na tey jii mooy suñu njiit ñun ñëpp di Alaaji Mbay Sall kon tim mooy ci kilifa gi ñu am dafa jël lépp jëbbal ñu ko jël war ko oyof tooy lépp loo xamante ni bii ñun jàngalkat waxtaan nañ ci ba tënk ko rek buñ ko jébbalee amul lu ñu def lu ëppalite ko kon tim de passage ñu tim sant xëy na sax tuuti nañ ci di waaye man mi nga xam ne bii man lay nekk ma yor formation bi ko ñi nga xamante ni ñoo ñëpp ñoo taxaw ti ma ko sànq muy ay jàngalkat di ay directeur d'école ak aide yi enseignant ci nekk yëpp jàpp ci ba moo tax kon képp ku ñu tàggatee Mbàkke Formel la Mbacké soo génnee dem ci beneen groupe wala beneen comité dañuy gis xarañ ci nga xamante ni waa Mbacké am nañ ko li mooy formateur yu ànd suude nekk benn ànd seen président ba lépp loo xamante ni bii war na ci njàngale bi rek def ko ci nañ ko sànq mu yàggee ak li ci comité bi daj ñu def ci ay essai def ci ay yi ni ñuy defee seeni formation loolu ñu koy defee xam nga sens bi mu am man en tant que responsable formation ñi ma seq ñëpp dañuy ay jàngalekat ba tax mudir bu ci nekk ñoom nañ koy seetee ba segg ko pour jàllale ko ñu koy wax de compétence dafa yomb ci ñoom te ñi nga tawar ko sànq ñu am ak bëgg am amuur ba xam ne lii ñuy def jàpp nañ ak jaamu yàlla la ki jël léegi kàddu ci turu ñi ñuy tàggat wax nañ ko kon dañoo nak une famille famille boobu nag ak ñi nga xamante ne bii seen xam-xam daa màcc ci wàllu njàngale jàngal mag muy enseignement andragogique ñoom xam nañ ko ba moo tax amuñ benn jafe-jafe ak ñi nga xamante ne bii ñoom lañu ñu war a transférer xam-xam boobu mu ci wàllu wax ak ci wàllu jëf mooy ànd nag li ngay wax da nga koy ferndeel ci li nga xamante ne bii moom ngay jëf. formation bi nag euh, duré na lu toll ci sept mois ndax xam ngeen ne chaque année président dafay dajale ay formateurs am waxtaan ak ñoom jox leen ndigal ngir ñu ubbi session de formation mu dajale dossiers yi waxtaan ak ñoom teg ko ci seen loxo bàyyee leen liggéey bi. ñu amal liggéey bi ci anam yu rafet ba nga xam ne jot na ngir ñu natt xale yi ñu doon leen natt tey ginnaaw ci biir natt boobu nag président joxoon na ndigal son secrétaire monsieur Mamadou Diop ngir mu waxtaan ak naatangoom yi nga xam ne ay formateurs nekk ci yeneen département yi muy département Ndiarème ak Bambey vraiment Naar Seck mu ngi nii toog nekk secrétaire comité départemental bu Bambey euh, am na benn technicien benn formateur boo xam ne it comité euh, bu Diourbel la dëkk waaye yàlla dafa def moom it mu am empêchement moo tax teewut waaye waroon na teew tey ci évaluation bi mu am nag ñeenti formateur yoo xam ne ñoo àndoon ak xale yi ci biir formation bi doon leen former ba egsi bi tey bi ñu egsee ci évaluation bi tamit vraiment ñu invité ñoo xam ne ay boroomi xam-xam la ñu ñëw jàppale leen si mu nekkoon Ali Sarif Naar Seck ak monsieur Sayar Sarr mi nga xam ne moo jiitee lépp loo xam ne dafa aju ci formation ci Sénégal ci département bu man di amee tey mu ñëw teew ci ànd ak liggéey bi loolu moo tax nag Alaaji Mbay Sall ne moom it mu ngi leen di sant bu baax di sant formateurs yi ci seen taxawaay ak eh, njàng mi nga xam ne jàngal nañ ko xale yi te Mbàkke toujours seenum njàng ak seenu xarañte Sénégal yëpp di ko coow ngir seen xam-xam bu rafet ndax mën nañ ne Mbàkke mooy département bépp ay formation waaye nag formation yoo xam formateur yoo xam ne it vraiment dañoo am xam-xam ba ñëpp rafetlu seen xam-xam ba noppi ñu disponible doon nekk ay fonctionnaire waaye bëgg Croix-Rouge tax ñu jël seen lépp delloowaat ko biir Croix-Rouge ngir jàppale askan wi kon loolu moo tax Alaaji Mbay Sall ne moom mi ngi leen di sant bu baax di sant xale yi parce que formation bi xawoon na yàgg si ñëw ñoo xam ne ci ay leen may leen tey li liñ doon wut borom may leen ko tey buñ ko amee ñu jariñ askan bi kon vraiment comité départemental Mbàkke niñ ko xamee woon mu nekk si kanamu comité yi rek tey jii feeñalaat na loolu ngir nekkaat si kanam di ñaan kilifa gi suñu borom yàggal ko fi waaye formateur yi koy jàppale ak technicien yëpp suñu borom jàppale leen génn nag ay moyens def ko ci formation bi génn na ko aussi defaat ko ci journée tey bi a jaar ci ñoom ci juróom-ñaari weer leen tàggat ci secousse polyvalente comme ni ko seen responsable waxee monsieur Wade tàggat googu nag dañ leen di seet ci ñoom lu bëree bëri non seulement dañ leen tàggat ci geste premier secours dañ leen ci éducation pour la leen tàggat ci connaissance de la communauté mais technique de communication bu ëllëg ku fi génn ci ñoom non seulement di nga nekk ab secouriste mais di nga a xam dara ci sa gi santé pour mën a def ay sensibilisation ay causerie ay VAD mais di nga mën a xam sa gox xam nooy waxee ak askan wi kon loolu la mooy ki nga xam su fi génnee day polyvalent mooy day mën a fu ne ah, ànd nañoo ñoom tey ànd ak formateur département bi formateur région bi niveau national ngir ñu xayma leen ba xam ñi war a am seen ak ñi ko dul am ah, ñëpp mu jàppale leen ba ñoo ñëpp ñu am Euh, bëgg nañ itam suñ paree formation bi di tàllal loxo Mbàkke Touba bépp kër comme ni ko monsieur Wade waxee bépp quartier bépp gox au moins suñuy mébét mooy am secours yoo xam ne tey su jëyee aman tey ñooñu mën intervenir à la première heure pour au moins atténuer les catastrophes wala boog jàppale askan wi ba euh, jëye ji am dina wàññeeku loolu mooy suñu mébét te incha allah rabbi ñoo ngi ci dans Touba ñoo ngi ci dans Mbàkke et ñoo ngi ci dans le département aussi. tànneef gi mooy d'abord di am 18 ans nga apte ci certificat médical bu koy firndeel par ñaari médecin yu ko signé nga ñëw inscrire amaale indaale sa photocopie carte d'identité wala sa extrait de naissance buy wane ne mën nanoo gis ne sa 18 ans mat na muy góor muy jigéen nag mën ngaa ñëw njàng mi nag amu solo niveau boo am ci académique jàng nga français jàngu ko jàng mën ngaa bind mën a liir soo ñëwee formateur yi fi nekk am nañ xarañceeg ku ñëw ak fa nga toll ci niveau dina la sol xam-xam boo xam te bi di nga mën réussir looloo tax tàggat bi suñ paree nag soo ñëwee qualité yooyu ba pare nag ñu gis ne ci biir formation bi amaan nga indiscipliné wala yeneen comportement yoo xam mi ngi wut ak croix rouge ci la lay sippee nag nga génn ndax suñuy départ nga gis ne dañu ma téeméeri téeméer wala téeméer lu tegu mais suñu ca njeextal ba ñii dañuy bàyyi dem ndax gedd ñii danoo seen xol bon ñu bàyyi ñii wéruñu ñu bàyyi ñii ñeneen ñi ñeneen kon segg boobu ci biir formation lañ koy defee mais départ bi moom amal 18 ans par médecin yi wax ko nga ñëw inscrire ànd ak ñun formation bi lii daal la ñuy tàggati nit ñi ak leen amul góor amul jigéen danoo bëgg suñ paree ñi fi nekk ci ancien di jëfal croix rouge départementale bu Mbacké di jëfal croix rouge ñoom ñu bokk ci ñi jëfal ñooñu bañ fii ñëw rek ngir wutab diplôme mais ñëw fi ngir non seulement am diplôme bi waaye toog temps bu bu niw bi ñu am ñu ànd koog ñun jëf ak ñun ci activité yi Croix-Rouge départementale di def moo xam màggal yi moo xam activité sportive yi moo xam bépp événement boo xam ne département bi soxla na ko préfet woonu ci wala sous préfet wala kilifa diine yi wala kilifa aada ku mën a doon suñu gestoo rek am mbooloo mu doy mu mën a ànd ak ñun dem ca Mbàkke na bokk na ci département yi gën a am mbooloo yàlla na ko yàlla yokk ñi am nañ ci yow yaakaar ba suba ginnaaw suba suñu paree at mi dina ànd ak ci liggéey bi ba ñeneen ñi ñëwaat dolli ci ko ba effectif bi am Mbàkke ñu koy nawee dina ko sante mu gën di yokk niveau national ba niveau international ñun laa si appel ne képp koo xam ne bëgg si croix am âge bi wax 18 ans au euh, physiquement ci bar médecin ñaari médecin mën ngaa ñëw jege sinu soo yëg na tàggat comme ñu tàggati ñi soo amee si diplôme mu jëriñ la waaye tam nga jëriñ askan wi jëriñ itam comité départemental jëriñ comité national ñoo ngi woo population bi yëpp non seulement dina la jëriñ waaye ëllëg su jëyee amantey sa koñ yaay a yem wala foo ci yem mën a am xam a xett li ñooña ba am ca teel du am wala nga saafara ba yóbbu kër docteur te la ko dal du waay suñu yéene mooy bii di ñëw ñu defee ko foofa am na màkkaan siège bi nga xamante ne bii Croix-Rouge départemental am na ko maire bi fi nekkan jox nañu ko miiri nañu ko ba pare la fa des mooy def fa makkaan moo xam mbaar la moo xam ab saal la ak ay wano yeneen ba ëllëg ku soxlaat fa mu ne fekk euh, fa lañ koy defee fii ngay jóge dootum ñëw fii ci fa ne day dema dema dem nag feek ñoo ngi fekk ba foofa nekk ci makkaan yi gën a rafet gën a taaru ci makkaan yi courage bu